le, le, le nouveau DG du port là il euh, on ne peut pas gouverner un pays avec dix milliardaires ñu bàyyi leen euh, ñuy tambambaalu mu ne li li des euh, buggu cee buggu cee yegg mu mel ni ñu ngi junj une reddition des comptes comme yéen di ngeen ko defee woon ba ngeen ñëw. waaw déggoo li ma la wax dama ne moom bu jàpp ne yenn milliardaires yi dama ne nit ñi ba ñuy liggéey di am seeni milliards moom fan la nekkoon. les gens ont travaillé xam nga dama doon joxe benn exemple barki Demba Ndiaye ma ne ko il faut que nit ñi peut-être un ami que tu connais Abdou Aziz Diop dafa am en 2007 il était d'âge xaw ma directeur de cabinet Omar Sarr ñu ànd ma ak moom université mu ngi yor benn kat-kat ñuy dawal nii mu ne ma ci Abdou àdduna moo gudd tànk ku ma waxoon ne un jour dinañ jóge université ba am oto di jaar fii Aziz li may wax nii c'était en 2007. 2007 année boobu la président Diomaye commencé liggéey aujourd'hui c'est le président de la République du Sénégal avant boobu am na ñeneen ñoo xamante ni ñi ngi doon liggéey di gagner leur vie ailleurs nit ñi pouvoir taxulee na sol costume pouvoir taxulee na voyager pouvoir taxulee na sol leneen les gens ont travaillé tedd démb balaa tey donc Waly Diouf Bodiang moom nit ñi nga xamante nii li muy wax ne dañoo am seeni milliards bañ koy am dañ koo liggéey ñàkk ko. ah mais yéen a criminalisé waaw déggoo li ma la non dégg waaw mais moom la non dama ne. yéen a criminalisé la richesse non pas illicite. ma ne waaw illicite ba ngeen ñëwee dal ngeen ci kaw ay nit. ma ne justement may mun a illicite mais dama ne yéen criminalisé richesse. xola nit am alalam ngeen ne ko kaay wax ñu foo ko jëlee. mais dama ne. Eh, parce que waa dégg nga yow yaay indi ay oh. preuve pour moom. ma ne pour pour nous convaincre. ma ne voilà. aujourd'hui ñooñu muy wax. bu leen nañ leen woo kuñ ci woo. dina la wax alalam nan la ko amee te sénégalais yi nag xam nañ exactement les gens qui ont travaillé ak les gens qui n'ont pas travaillé fii li ñu fi war a leeral bari na trop et je pense que buñ ci yeggee dinañ ko wax. lan lañ fi war a leeral dinañ ci yegg buñ ci yeggee dinañ ko wax. no yen yéen a jóge ci li ñu fi war a leeral. bari na buñ ci yeggee dinañ ko wax. mais waa mais vous êtes d' accord que pratique boobu yéen a ko fi tàmbali. non je ne suis pas d' accord. mais si non non non. si ñun a toujours été on a dans la légalité no dama ne on a toujours été dans la légalité. aujourd'hui on continuera à être dans l'égalité et on continuera à être dans l'opposition républicaine bu ñu yaakaaree ne seen menaces yooyu ñuy def. dina tax nit ñi du ñu wax exactement ce qui va se faire il se trompe. xam nga déclaration gis nga tey jii gaa wax la may mun a xoolal rien. xam nga déclaration je dis bien rien. waaw de faire de la politique dans ce xam nga déclaration xam nga déclaration Waly <laughs> Bodian xam nga lu may fàttali. Ah. Euh, ba ngeen di doog ñëw ci nguur. oui euh, ngeen toog président mu ne il a une opposition riche et et, et bien formée il faut que mu casser le PDS. ba mu ko waxee xaaral rek ba mu ko waxee ñu ressuscité CREI yi procureur Alioune Ndao euh, benn jour rek benn vingt heures euh, ñu def édition spéciale mu joxe une liste de vingt cinq personnes à poursuivre ñu lancer la traque des biens mal acquis mu nekk procédure yu injuste procédure yoo xam ne elles sont parfois illégales ñu utiliser ko juste pour casser le régime libéral man loolu la may fàttali c'est-à-dire ah rien n'aura changé entre temps may mun a xam nga je pense que li may wax ni c'est du factuel ah non dama ne dama ne amul dara loo xam ne lu ci injuste la ah. loolu sa xalaat la yow li may wax ni c'est du factuel non dama ne c'est ton point de vue et ta vision je ne euh, partage pas borom ah, euh, ñi ñi ñi ñi saytu ci droits de l'homme yëpp nee nañu Euh, euh, CREI juridiction la boo xam ne respectewul respectewul ak ak yelleefu doomu aadama yi ñan ngay waxal ah. ñan ngay waxal ñii di saytu droit de l'homme yëpp ils ont dit que CREI juridiction la boo xam ne ay waxu saytu droit de l'homme ah, ils n'ont pas raison non bul ma wax lu ay waxu saytu droit de l'homme ils n'ont pas raison moi je pense que loolu donc ñoom bu ñu ñëwee aussi dañuy topp ci seen i tànk rek xam nga tey jii amul dara loo xam ne mën nañoo détourner ci ñoom li ñu dig sénégalais yi amul dara loo xamante nii mën nañoo détourner ci suñu objectif pour aller dans l'opposition républicaine amul dara loo xamante ni mën nañoo détourner par rapport ak li nga xamante ni gis nga le régime du président Macky Sall a fait son temps ils ont pris des engagements vis-à-vis des Sénégalais te li ñu fi def amul kenn koo xamante ni mën ko ko dindi la preuve comme ni may wax félicite ci li nga xamante ni moom la ñu gis la réalité du pouvoir di continuer li nga xam ne parce que li ñu fi def nii yëpp li ñu fiy def yëpp président Macky Sall moo ko commencé loolu mooy. la continuité des pouvoirs maintenant la reddition des comptes. li gis ci rapport yi une reddition des comptes peut faire mal oh, oh, oh, au à Benno à l'APR. dama ne ça ne mal aucunement à l'Alliance pour la République et c'est moi qui te